ah Doudou maa ngi lay fay euh, di la nuyu euh, di la di la ziar waaye aussi di nuyu sa fans yi ah <laughs> ku ci mel ni Massata Ala Ndiaye ak suñu gars yi nekk surtout ci diaspora bi di la Sénégal de la diaspora euh, di tàmbale rek fa ma daan commencé di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di gërëm suma ñaari wayjur di ñaanal suma wayjur bu jigéen yàlla xaral ko aljanna di ñaan yàlla na yàlla yërëm ko yërëm ko mu fekk ca baqi mbaaw yee ak képp ko fekk di ko ñaanal suma wéjuru ji góor yàlla sàmm ko moom tamit te bàyyi ko fi sumay rakk sumay soxna sumay jarbaat bàyyu ma bàyyu ma kenn di feddali suma njëbbal ak suma yaakaar ci sama soppe Mawlana Cheikhina Ibrahima Babul Xayri ibnu Sëriñ Mbàkke Madina di ko ñaanal suma borom sàmm ko di ñaanal xalifa baayam suñu Cheikh Mbàkke yàlla dëgëral ko yàlla dooleel ko yàlla aar ko waaye di ndokkeel xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha al Cheikh Mouhamadul Muxtaar yàlla dimbali ko ba yéen bi woyof lool te mu yàgg fi lool waaye di ziar xalifatul amdi tarixatul muridina Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ziar diina ji yëpp waaye même ba ci jàng bi nag di ziar soppe yi ak fans yi ba ci noon yi sax buur mu ngi leen di ziar di leen ñaanal nit ñi du du dañu lay bañ dafa am lu ñuy bañ ceew rek. wala ñoom lu ñu la déggal rek wala ñoom lu ñu foog ci yow waaye yooyu yëpp euh, mook àddina ñoo ànd waaye daal jàpp leen daal buur bañul kenn buur noonawul ak kenn buur xeexul ak kenn képp ku saaga buur buur jéggal na la képp ku tooñ buur buur jéggal na li ñaan yàlla yàlla def ci réew mi seen dernière face to mhm. buur naka nga gisee image yu Balla Gaye ak Boy Niang jërëjëf Doudou Boy Niang 2 la càppaacoli dama mës wax ni c'est un càppaacoli il est unique dans son genre Boy champion bu ne jaar na fa Jerry Boston Pape Cissé ba ci bàyyam moom dëggal ba ci moomee Ndaw Taïsine ba ci Eumeu mais Boy Niang uri unique mais kan lay dajeel Balla Gaye 2 alias Cukkuli le fils de Double Less fees euh, fees bërki dem bi nag fees fees bu bu bari jàngat la ci côté communication. Hmm, hmm. <coughs> waaw. waaw. bërki waaw ba bërki dem wuyu waaw waa xam nga euh, seen première face to euh, man buur defoon naa ci benn sortie ne je ne suis pas d'accord sur la communication de Boy Niang ndax quoi qu'on sert certes Balla Gaye 2 ni ko Boy Niang def keroog noon la daan def ay magam d'accord naa ci d'accord naa ci lay boobu ñaareel bi ñu ne Boy Niang moo gën a nekk xale ñoom loolu la ñu wax mais bu dee Boy Niang moromu Sa Thiès kon moog Balla Gaye xaw ñu neexu ci at première face to face bi bul ma laal dinaa la laal mu am fa altercation bu dul jeex deuxième face to bi ñu gis ni ñaari mbër yi dal nañu mais dernière face to début ñu ngi doon. jéem a temporiser mais ba mbir mi fan la mujjee ci waxante booy ñaa xas na teg na ko lamb moo tax ma bàyyi jàng ndax dem naa ba terminal gis dafa xaw a yéex ci man te yaay dafa teg cin di ma xaar ne ko man ak yow dana métti trop waaye li ma jaaxal mooy booy ñaan dañu woon Balla Gaye une minute laa la may kër bi ñu ko waxee buur def na sorti ne d'accord Balla Gaye 2 du mu Boy Niang di may une minute certes Boy Niang mën a daan bala Gaye 2 attention mais nag Balla Gaye du mu <laughs> Boy Niang di may une minute kon l'histoire m'a donné raison Boy Niang bi wax dem ci communication lu mu wax man ak yow foog ñu bëree vingt nangam minutes moo tax Balla Gaye ne ko da nga wax lii tey suba nga wax lee kon say wax mën na soppeeku à tout moment ma gis ni Balla Gaye Boy Niang delloo si waat na ko ci dernier carré waaye may gis ba tey un Boy Niang bu am benn détermination bu excessif benn détermination bëgg daan Balla Gaye est-ce que indaale loolu ci bés bu toll noonu mën na am gëm-gëm bi certes parce que booy dem ci bés bu toll noonu te gëmoon da am ndam c'est pas la peine mais est-ce que indaale ku kut ko kut psychologiquement mentalement est-ce que mënul indi jafe-jafe ci bés bi. waaw ba tey. na waaw waaw changé ko waaw waaw parce que euh, loolu mënu nekk sax ñun ñi xam làmb xam nañ ni loolu c'est impossible man maa ngi alerte toujours pour le camp de Boy Niang ñu jéem a comprendre li may wax xam nga euh, wax ci làmb du dafa metti euh, jëf jël dégg naa ko ci benn live bërki dem ak Dev Diaspora ñoom coach Bakri jëf jël ne du samay wax na leer safu Boy Niang nañ ko jël tëj ko ci néeg pendant quarante huit ndax mentalité bi muy demee ci bés bi baaxul Boy Niang est un champion dama wax ni c'est un samouraï il doit avoir la mentalité d'un vrai samouraï loolu laa gëm man buur su ma wax ci làmb je du ma wax pour les beaux yeux de ma Samba wala de ma Demba Boy Niang 2 est un samouraï il faut que mu comprendre ni qu'il doit avoir la mentalité d'un samouraï waaw bala Gaye 2 mën nga ko xëqatal ci wax mais est-ce que mën nga ko ërtal ci bés Balla Gaye 2 alias Cukkuli est-ce mën naa nekk Doudou déggal ci wax ji Balla Gaye na ko li ngay wax nii doo ko def wax ma yow booy ñaŋ ban mbër nga fi jël nga fi jël tànkam wala ban mbër nga fi song parce que ñun ñëpp on sait très bien que Boy Niang 2 défenseur la Balla Gaye 2 c'est un loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci Boy Niang il est jeune il est très ambitieux la keroog li fi mu teg bëtam ñëpp xam nañ ko couronne boobu moo loolu teg ci bopp bi moo ko traîné la mais est-ce que Doudou gis nga un Boy Niang daan Sa Thiès la manière dellu daan Balla Gaye 2 loolu àdd waaw yoon ñu ne ko ñu tànnal ko ay mbër Balla Balla Gaye loolu yàgg na moom bi mu ñëw ñu jox ko waaw mu defal ko affaire mu defal tey mu bi muy bëgg bëree ak Balla Gaye 2 boobu combat ma ak Sa Thiès booy ñaa Niang dafa mës gëm ni que dafa war a bëree ak Balla Gaye 2 daal loolu la mës gëm muy chose normale loolu mooy mentalité guerrier dëgg il a à le faire ñëw tey dajeeg Balla Gaye 2 bokk na sur les lutteurs les plus brillants de l'arène defal guy gi bagage defal ko garga ci combat yu mujj yi rek ñëw dal ci Sa def ko la mu koy def mu lay wan capacité mbër mu capable la dama ko wax fi suba ne loolu muy wax noonu lu mu gëm la mais na def attention doomi duubal di koo xam ni dama wax ni xam nga bala Gaye sooy wax ci moom di chroniqueur ñi gàtt xam-xam dañ naan da ko fan ñenn sax dañuy dem ba aller un peu mooy da ko fan wala da ko faral ñun bés mënatul rëy sunu kanam man buur wax naa bés bu ne waaw. Hmm. waaw ma man li may wax ci làmb laa koy wax te ci xam-xam laa koy teg mm. dafay ñëw dafay ñëw waaw xam nga man samay wax duudu euh, jali muus la wàqi rek fekk mu tooy xet Balla Gaye dafa ñëw ci biir arène sénégalaise mbër yi gën a oos lafi fi dajal daan leen ku ci nekk na mu la daane bokkul ak na mu daane sa morom bëre ak ay moromam bañ jeex mennum isaa puy moo ko ci daan bala fayu daan lee mbay juuf daan lee kuli fay daan lee Tyson Junior daan lee saalum saalum di remonté les Ousmane Diop di continuer maanaam xo di continuer yoonam pas par pas ba ñëw dal ci Modou Xarañ Lo mu nekkoon le combat bi gën a doy waar ci siècle boobu ne woon ko danaa la duma danaa la daan soo bëree ma daan la soo xeexee mu duma la ñu daje mu def ko ñu xëqatal indi mag ñi sa jox ko moom Ndao Tyson mu ko fii weeru koor fii fii tabatin ñëw mu suqi Yaxya Jóob Yékini les vaincus les vaincus nga xamante ne ko toog na dix ans de règne zéro faute Yaxya Balla ñëw defal ko lim koy defal këru Sereer dañu doon crise ak xëm mu dégg roi des arènes dal ci bombardier yi colle ñëwaat donc il a du mérite li ñuy wax ni li ci li ci li ci jàngat mooy ki ci am droit jàngat mooy Boy Niang parce que moom moo bëgg a relever un défi le défi mooy lan daan Balla Gaye 2 alias te Doudou booy Niang mi ma gis nii dee nañ ko de ci lu leer la toog bàyyi xel sama wax ji Boy Niang ci lu leer nañ nañ nañ la toog ci diggante ak Balla Gaye xaw ma nag luy xew duudu waaw xaw ma nag kuy daan mais booy ñang mi mel ni jàkk barki dem muy génn seen buntu kër yaay ji dar ko may xool regardu booy ñang di xool seen regard pointu de booy ñang duudu booy ñaar dee nañ ko te toog mu ci leer bés nag fekk yëg guñ ca dernier quart d'as ba te ñam ko seqal foofu lañu ñu gën a mane mooy dernier ligne droite bi ci moom lañu ñu gën a mënee ci zahir moom lañu ñu gën a mënee ci baatin te Balla Gaye 2 bii ma gis xaaral ba open press am ñu teg ko bët Balla Gaye 2 bu dem bu ñuul ko nopp yi toj ba ndengeent xam ni Balla Gaye 2 ku yombal combat am bi ak Boy Niang lam ko waxoon ne ko bu dee ne ko duñ la yombalal combat bi mën nañ yombal wax ji nii rek Balla Gaye 2 prend au sérieux très au sérieux hmm. waaw hmm. waa Doudou Balla Gaye 2 bu Boy Niang daan la Sa Thiès daan ko luy xew mais catastrophe la te booy Niang mi takk nay bagaasam jëm dëkk boobu dëkk ba mu daanee woon Sa dëkk boobu la jëm pour daan pour daan Balla Gaye 2 maanaam li ne ci moom mooy daan rakk daan mag ah wóoruñu le premier lay reer le premier dana leer nañ julu lu damaa xam ni arène national bi Boy Niang bàyyi ko Pikine gii chaque jour damay wax ni Pikine waaye ay russe lañu ay Mikhail Gorbatchev ñoo Mbaye Toldo waa koñu Afia waa Bayalu Sëñ Mansour tali bu mag tali bu bees Icotaf Texaco mab bu dix heures ñu feesal arène nationale Balla Gaye 2 Mar Sam Las Palmas Guédiawaye rond def bloc nga seen ñoom Pape ma ca ñoom Baara Gueye Kilim Ouel Aziz Ndiaye Massata Ala Ndiaye Baye Ala Ndiaye duulu booy ñang bu njëkk boobu duulu rango rango rango rango sërëm yooyu mu naan rango te eh, takk daal di takk téeram xaajaram boobu jàkkaaroo na ci kaw naan ngeen dee booy ñaa ngeen dee duulu la Balla Gaye mu bàyyeekoo géej waaye kii jël corniche bi fële arène nationale di lank Adama Ngom jàkkaarloog moom ñoom per Diaw ndeysaan per Diaw takk ndigg li walaay ndeysaan ba tey donc lu metti lay doon gis na bi ku ko yombal ñaari mbir yi yaa ngi ci erreur combat bii barke alxuraan du yomb ci Boy du yomb ci Balla Gaye 2 Boy mbëru askan la Pikine la dëkk chaque jour da koy wax ci ay waxam man duma ragal Pikine laa dëkk Balla Gaye 2 dafa am fu mu toll tey ci carrière am ak Boy Niang bokk sur les ultimes combats de son carrière mu neex ak mu naqari donc wërëb ba dem na këng lañ doon wax ci ñaari at at ay weer semaine léegi mu jot léegi kenn mu jar ala kulli xaal taaku saanug le premier Boy Niang ak Balla Gaye di dina ku des hmm, dana am des de <laughs> waaw waaw non lii ñamali la yow maag yow chaque ñaari fan ñett dañuy dañuy jàkkaarloo ndax bu ñu fàtte ni euh, mar ak soq mu ngi kanam rëg-rëg bu ñaa borom mari jaral na ma ko uppaajam ak saa Thiès <laughs> mu ngi sunu karam Francesco Ndiago boobu ak Forza mu ngi sunu karam yeneen bés ñaa leen bi bii promédia dama leen sax leneen lu bees mooy chaque semaine dudu ñëw ñu toog jël benn combat waxtaan ci décortiquer ko jox leen ko yéen yéen internet yi loolu ngoonu làmb la Doudou kon tuddee naa waaw Masata waaw waaw waaw ngonalu làmb kon gars yi di leen jox dig daje sur Bprod Media